allahumma ya rabbi allimna maa yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Diaw Diallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa julli ci yonent bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa adka taslima ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu këndaluk jàmm ñu di leen di nuyu di leen ñaanal yàlla waxtu bu ñu bokk séq ko ñu di wittalante gi ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def xasanaatu fil mizaan yàlla ñu yàlla may dégg ak yàlla ñu yàlla may ñu bokk ci min alladina qaalu sami'na wa ata'na yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañ naan dégg nañu waaye dinañu topp loolu ñu dégg yàlla ñu ko yàlla yénkeewal ni amin ya rabbal alamin mbokk yi Rewmi FM 97.5 képp ku koy bàyyi xel fii masharikil ardi wa magharibiha nuyoo baa ngi noonu waxtu bi jot na ñu ànd ak suñu thème ba ñu nekkoon di waxtaan ak mbokk yi te mooy fadlu talabul ilm min al wa sunna mooy ngeneel ba nekk ci sàkku xam-xam ci la alquran tegtal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale ko su ko defee ñu ànd ak ci aaya yu fasante ko ci alquran aaya bu njëkk ba nekk ci suratul fatir buur yàlla tabaraka wa mu ngi di wax ci saar bi ci mu di wax yonent bi ne ay melokaanu jaamu yàlla yaa ngi nii ñoo xamante ne ñoom laa reconnaître ne ñoo ma bàyyi xel ñooy ñi may ñooy ñima nekk di fuglu di ma wattu di ma bàyyi xel ci seen wax ci seen i nekkin ci seen jëflante ci seen demalante ak dikkalante ñooñu duñu borom sant yu mag ñi duñu borom tur yu sell yi duñu borom géño duñu borom alal waaye nag ñamu doon ki ko bëgg xam nag ñu may nopp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yenn ak seeni i njaboot. buur yàlla ne ñu ci suratul fatir innama yaxsha allaha min ibaadihi l ulama na ñi fi nekk di bàyyi xel di wattu yàlla di ko fuglu di ko bàyyi xel ne yàllaa ngi xam seeni lépp ba tax na duñu def lu defuwul duñu wax lu waxuwul ñooñu duñu kenn lu dut boroom xam-xam yi bur yàlla ne innama lu fi nekk yaxsha allaha ñiy ragal yàlla wattu yàlla di bàyyi xel yàlla min ibaadihi ci jaamaam yi ñooy ñan ñooy al ulama boroom xam-xam yi kon xam-xam yàlla jox na ko dayo bu kawe ci aya bi mu daldi di ñu wax bi léegi ci alquran ci sotu taaha ci aaya 114 buñ fa demee xool bur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ne di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa qul rabbi zidni ilma wa qul rabbi zidni ca suratu taha bur yàlla man man mënoon naa wax yonent waxal ma yokku la alal waxal ma yokku la kattan waxal ma yokku la taar waxal ma yokku la privilège su àddina ya nekk fa man yàlla waaye yàlla daa lépp teg ne mu ne ko booy ñaan yokkute ñaan ma ma yokkal la xam-xam xam-xam dong la yàlla wax ne booy ñaan la lay yokku ñaanal xam-xam yàlla yokk la ko yokkuti xam-xam de mënees nañ koo gam le ci fa yàlla di waxee ca suratul isra wa ma utitum min al ilmi illaa qalilan joxuma leen dara ci xam-xam lu du toq yàlla bu ne qalilan tuuti ci ñun loolu toq lay doon toq waaw ci langaasu wolof buñ ne tuuti ak toq toq moo gën a tuuti tuuti waaw yàlla nee na joxuma leen dara ci xam-xam lu dut lu ndaw lu tuuti kon ñun lu tuuti loolu yàlla di ñu joxoñal ne loolu lañ ñu jox ci xam-xam ah ñun de buñ koy gam-gamle mun nees nañ kaa gam-gamle toq waaw toq waaw jënnañ ko yàlla boolee defal nii kon ñu nit ñu ngi ñaan yàlla di ko tàllal suñu loxo ñu ko naan allahumma zidna ilman yàlla ñu yàlla yokk xam-xam ñu di ko ñaan bi léegi allahumma allimna ma yanfauna yàlla nga ñu xamal la lu ñu njëriñ allahumma allimna ma yanfauna yàlla ñu ngi lay ñaan nga xamal ñu la ñuy njëriñ waaye ñu ngi lay ñaan bi léegi wanfana bi ma allamtana yàlla nga ñu njariñ ci lang ñu xamal lang ñu xamal yàlla nga baaxee ñu ñu war se war a mën a njëriñu waaw ndax xam-xam bu amut njariñ loolu ñaari ñàkk njëriñ ñoo ter ci kanamu jëmm jooju am na xam-xam waaye amul njariñ xam-xam bi amul njariñ te njëriñu wusi moo tax ñuy ñaan yàlla mu xamal ñu la ñuy njëriñ waaye bu ñu xamalee lañuy ñuy njëriñ tamit yal nañu yàlla may ñu war a mën njëriñu ci lam ñu xamal moo tax ñuy ñaan allahuma allimna ma yanfauna yàlla nga ñu xamal la ñuy njëriñ wanfana yàlla nga ñu may ñu war a mën a njëriñu bi ma allamtana ci li ñu xamal kon ñaari njëriñ ñi formant sens contraire lañ koy ñaan yàlla waaw comme ñaan bi numéro neuf la boo ko taxawalee mu jox la neuf boo ko sampee mu jox la siis kon yàlla ñu yàlla xamal la ñuy njëriñ muy allahuma allimna ma yanfauna yàlla ñu yàlla may ñu war a mën a njëriñu ci lim ñu xamal mooy wanfana bi ma allamtana waaw su ko defee ñuy ñaan yàlla bi léegi la malaaka yi delloo avance keroog ba yàlla bëgg dugal aadama alayhi salaam ak malaaka yi ci salle d'examen ba ñu war a def concours la malaaka yi jébbaloo ci kanamu yàlla ci ñàkk xam ba yàlla xamal ci épreuve ba ñu war concours ba ñu war a def ngir kan moo war a wàcc ci suuf ñoom la walla aadam la malaaka yi jébbaloo fa yàlla moo ne dañ ko ne subhaanaka laa lana illa ma allamtana innaka anta al alimun hakim malaaka yi moo ne dañoo jébbalu fa yàlla ñu ne ko xaalu malaaka yi daal di booloo ñu yëkkati seen baar ñu ne subhaanak laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimun hakim waaw malaaka yi wone nañu seeni ñàkk xam malaaka yi nangu nañ ni xamuñu dara lu dul la leen yàlla xamal ndax yàlla mooy buur bi xam ci moom la xam-xamam tegu ci xarañte boo xamante ne foo ko natt weesu na ko jalla wa ala moo tax ñu ne ko subhaanak mboolem xeetu ci lange ñeel nañ la yow yàlla dañ nga set nga ci lépp lu la doomu aadama yi di melale wala ñu du la ko dendale subhaanak gis nga malaaka yi keroog buñ doon delloo seeni avance keroog buñ doon delloo avance kerook buñ doon jébbalu dañoo mànkoo sàbbali yàlla ci cellaange ba nekkee ci la doomu aadama yi di ko dendale ak xërëm yi nga xamante ne moom la yéefari di melale walla ñu di ko dendaleek yàlla ñu ne ko subhaanak set nga ci lépp la doomu aadama yi di melale subhaanak yaay buur bu set wecc lépp loo xamante ne cellaange la yow rek yako ko yeyoo jalla wa ñu ne yàlla ne subhaanak set ak cellaange ñeel nañu la subhaanak buur yàlla ca teg ca laange ñeel nañu la subhaanak ñu ne ko lépp luy xeetu ca laange yow dong la ñeel buur yàlla subhaanahu wa taala ñu ne ko subhaanak ca teg ca laange ñeel nañu la yow yàlla subhaanak yaa fi nekk di buur bu set wecc loo xamante ne dañ ci lépp lañ lay bokkaale subhaanak ñu ko laa ilma lana amul dara li fi nekk lañu xam amul dara li fi nekk ci ñu xam-xam illaa maa allamtana lu dut lang ñu xamal ñu ne yàlla ne subhaanak set nga laa ilma lana amul dara lu fi nekk ci lu ñu xam illaa maa allamtana lu dut lang ñu xamal ñu ne ko subhaanak buru yàlla set nga dañ nga wecc ci lépp li la doomu aadama yi di melale laa ilma lana amul dara li fi nekk lu ñu xam laa ilma lana amul dara la nekk suñu ñu xam-xam illaa ma allamtana lu dut lang ñu xamal allahu akbar malaaka yi daal di delloo avance malaaka yi daal delloo revanche malaaka yi daal di jébbalu fa yàlla ñu ne ko ci teg ci lànge ñeel nañu la yow yàlla laa ilma lana amul dara lañu xam laa ilma lana amul dara la nekk suñu xam-xam laa ilma lana xamuñu dara be dara boolooje illaa maa allamtanaa lu lang ñu xamal allahu akbar kon malaaka yi ñoom teel nañoo jébbal seen bopp teel nañoo tàllal seen tànk ñu ne yàlla ne amul dara lu fi nekk lu ñu xam illaa maa allamtanaa la dut ñu xamal li ñu xamal dong la xam waaw innaka lu fi nekk antal alimun hakim yaay boroom xam-xam ki xam lépp te yaay ki xereñ ci sa xam-xam bi xam allahu akbar mbokk yi lu jiitu loolu buur yàlla ne yonent bi ne wa allama aadama al asmaa kullaha wa allama aadama al asmaa kullaha xamal aadama mbir yi lépp la yàlla xamal aadama yàlla bu ne wa allama aadamal al asmaa kullaha yow mi nar a laaj ana loo xamante ne des na te aadama xamu ko ñu ne la dara ñu ne keroog la la yàlla installé logiciel bi nga xamante ne war nga war a mën a comprendre nag nga war a mën a manipuler sa téléphone ba nga yor wala appareil bi nga yor walla nga mën a loo xamante ne xam nga ko te jàngoo ko defoo ko formation allahu akbar kon bu yàlla ne wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla mooy ki xamal aadama lépp amul dara la des lu dul aadama xam na ko bim ko waxee malaaka yi malaaka yi daal di ñu ne subhaanak laa ilma lana ci teg ci laa ngay yow yàlla amul dara lu ñu xam lu dul illaa maa allamtanaa la ñu xamal li fi nekk mooy innaka antal alimun te yow la sa xam-xam atte ba nga xam ba nga loolu moylu lu jekk mooy lu baax mooy lu ñoŋ subhaanahu wa taala mu doon loo xamante ne mooy xam-xam boo xamante ne keneen ku dul aadama yàlla xamalu ko kenn ndax yàlla xamal na aadama ba aadama xam mu ne malaaka yi ne na ma tuddal lii malaaka yi daal di delloo avance ñu delloo kon aadama moo mujjee am certificat bi nga xamante ne mooy concours bañ doon def foofu ci asal te bur yàlla daal di wàccee aadama moomu ci kaw suuf si mu dal di meññ takkandeer yi nga xamante ne tey ñooñu ñoo fi nekk ñu di ay jaamu yàlla yàlla ñu yàlla aar yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla yënkee wal xam-xam ba nga xamante ne jamono ji ñu toll nii lenn ci waajur yi jàpp nañu seeni loxo xale yóbbu leen ci daara yi nga xamante ne wala ci al daara yi alquran wala ci hatta école nasaraan yi ngir ñu war a mën a jàngee foofu la nga xamante ne mooy seeni diine waaye mooy seeni dund àddina bokk na ci xam-xam yooyu ñu war a jàng ci bérébu jàngukaay yooyu ñu ne gannaaw si yow waajur bi yaakaar bi nga am ci école ba nga yóbbu sa doom bu dee école daara la wala bu dee école franco arabe la wala bu dee internat la mu war a jàng alquran di baatu yàlla mu war a jàng doxalinu yonent bi di sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu di ko jàngal lenn ci ay mandargay yi nga xamante ne mooy mandargaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadis yu fasante ko li ni xuslu yadayya qabla taam xuslul yadayni qabla raxas sa ñaari loxo lu jiitu ngay lekk la fa bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mu doon hygiène boo xamante ne mu doon laab boo xamante ne ku dut bi kenn jàngale ko boo ko weddee raxasal sa loxo ba noppi nga daal di xool loolu nga raxasu namu mu mel bu dee da ngaa imaginer noonu nga war a jëlee lekk bi lekkaale ko bu dee raxasuloo sa loxo kon da ngay lekkaale taq-taq bu nekk sa loxo yonent bi yàlla yónni di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa xam na ne doomu aadama bi du ñàkk il muy am yitte jëmale ko ci la mu war a jëfandikoo ci xeetu ñam moo tax yonent bi ne sallallahu sallam xuslul yadayni qabla taam da nga war a raxas sa ñaari loxo balaa ngay lekk kon ñoo ngi nii di joxe leson lu mel ni dars lu mel ni mbind ci ki nga xamante ne mu ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ñu ne ñaata nit nga jox loxo ñaata yëf nga laal ñaata mbir nga doon jëfandikoo say loxo ndegem ñag mbi tegu na moo xam kuddu ngay jëfandikoo moo xam say loxo la yonentu bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam moo ne xuslul yadayni na ngay raxas sa ñaari loxo waaye yonentu bi lu tax ñuy raxas suñ ñaari loxo mu ne qabla taam lu jiitu ngay lekk lu jiitu ngay lekk raxasal sa ñaari loxo waxul benn loxo comme ni ko gars di def jël càmmoñ bi làq ko seen digg ginnaaw ñu tàllal seen ndeejoor ñuy pocc pocc seeni loxo naan ngi yaay dañuy raxasu yonent bi waxut nii de ñaari loxo la wax nga froote ko bomb ko ci kaw ak digg bi ci diggante baaraam yi nga bomb sa loxo bi ba mu set waxut ne tamit ndox boobu nga raxasu boo noppee aadama ñëw raxasu si bu noppee faatu ñëw raxasu si bu noppee lamin ñëw raxasu si waxut nii de raxasu bi dañ koy sottilante waaw benn raxasu fukki nit ak juróom di fa raxasoo loolu ah manis na ñoo wax ne ku raxasu rek la loxom set ku ci topp loxom setut ku topp ci ki topploo kooku loxom setut ñetteel bi loxom setut ñeneenteel bi loxom setut juróomeel bi moom <laughs> manis na ñoo wax ne mooy jël salte bi yëpp ànd ak moom mu dem lekkee ko waaw kon raxasu ñaari loxo buñ koy jàngal xale bi ci kalaas bi dañuy teg lañuy raxasoo ñu andi lañuy ñuy sottee ni nii lañuy raxasoo nii la yonent bi ne xuslul ni raxasu ñaari loxo kañ qabla taam lu jiitu ngay lekk hmm. moo ne lu tax yonent bi jàngale raxasu ñaari loxo laata ñuy jëfandikoo ñam moo ne li yafquda maa qad yakunu alayhima min al wasax ngir nga tàqale ko ngir mu deñ la nekk ci ñaari loxo yooyu ci ay salte ci ay dese ci ay tilim même bu dul dara nga laal même bu dee joxoo kenn loxo loxo bi digg loxo bi day ñaq deru loxo bi day ñaq ñaq boobu di siit ci sa ñaari digg loxo yi dafa am poussière ba muy ba muy xëcc ba muy aspire waaw poussière yooyu ñax bi bu ko aspirer day takk ci sa loxo boole kook la ngay cofaka di ko laal moo ne yow bu dee raxasoo nga dem jël sa loxo ne ko càpp ci la saane ku nday di jëfandikoo maafe bi wala supp kànja bi waaw wala siise ku nday nga jël sa loxo ne ko fa càpp jaxase kook ñànkatang bi subhaanallah yaa ngi lekk la nekk ci biir bool bi mais mu ngi àndaale salte bay ngay tàbbil ci sa biir bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nañ leen jël ndigle yonent bi ba xam dinañ ci jël dinañ ci gis résultat ou pas nañ leen jël satala def ko ci eh, def ci ndox ñu jël bool teg ko ñu jël kenn koo xamante ne mooy njëlbeenu nit ki ne raxasu raxasu na ba loxom set ba moom ci boppam xam na ne ñàq tooyaay beeg am na ci biir xolam ne sama loxo bañ ma doon sottil ndox ma di ko raxasu raxasu naa ba set na Lamine sa loxo set na waaw raxasul déet set na raxasul leer na la sa loxo set na waaw set na ñu xool ndox boobu nu muy mel kon bu ñu xoolee ndox boobu dinañ gis ne salte ba ci ndox bi la ndox bi changé couleur bi nu mu nekkee ñàq beeg salte beeg poussière ba wàcc ci ndox bi ñu xam ne ndekete ci loxo Lamine la bàyyeekoo waaw Lamine bu fekkente ne yow raxasuloo woon nga dem toog ci ndab bi jaxase maafee beeg ñànkatang bi nga lekk ko lekk nga ñam de mais dafa am lu mu àndaale ci sa biir mooy lan salte moo tax kanara la tax yonent bi nee na nañu raxasu ñu ne yonent bi daf ne ngir li yafqudaa li yatafaqadaa ngir nga taxale ko maa qad yakunu alayhima min al la nekk ci loxo yooyu ci ñaari loxo yooyu ci xeetu salte la nekk ci sa ñaari loxo ci xeetu salte ngir nga taxale ko ku loolu moo tax yonent bi ne na nga raxasu laata ngay lekk lii leerut ah kañ ak lan kan mooy laaj ci classe waaw Mohamed laaj na wala Ibrahim walla Aïssa kooku tamit laaj na nee na deuxième question bi mooy du'a al baraka du'a bil barakati ñaan bi nga xamante ne moom la ñuy ñaan ngir yàlla defal ñu barke ca la ñuy lekk bariwaayu lekk amul njëriñ tuutiwaayu lekk comme sama gaay ñi nga yëkkal leen ñu xool la nga yëkka ñu ne soxna si tey nga dee de lu ndaw lii ngay lekk xanaa joxuma la dépense xanaa saaku ceeb bi nekk fi pourquoi ngay teg lu ndaw li six secondes yi <laughs> leen yàlla sàmm jaxate ku ndaay ñoom daal affaire bi dañ ko amal yitte lool waaw bariwaay beeg tuutaay bi amul solo li am solo mooy barke bi moo tax am na élève bi nekk ci classe bi laaj na nee na xadiisu man ataamahu llahu taaman qalilan moo ne barke bi nga war a ñaan mooy xadis ba yonent bi ne képp ku jox ñam ba nga jëfandikoo képp ku yàlla leyal waaw fal yaqul na nga wax ne allahumma buur yàlla baarik lana fii wa atamna xayran minhu rawahu tirmisiy wa xasanahu al albani yonent bi salaa yi nee na képp ku yàlla wërsëgal képp ku yàlla yenkeewal képp ku yàlla baaxe nga jëfandikoo ñam moo xam ñam bi dafa tuuti moo xam ñam bi bëri na fal yaqul na nga wax ne allahumma buur yàlla baarik lana fii yàlla nga ñu barkel ci ñam bi ñu wërsëgal nii wa ataamana xayran minhu yàlla nga ñu wërsëgal ñu lekk ci la ci gëna am yiw allahu akbar hadis bi Tirmizi moo ko solo waaye Albani wéral na ko rafetlu na ko mbokk yi bu dee ñam ba ngay jëfandikoo danga nga ñaan yàlla mu meela ci barke waaye yanka ñaan bi léegi ñam boobu na la yàlla wërsëgal nga jëfandikoo ci li ci gën a am yiw kon composé nga ñaari yiw ñaan ko yàlla ci ñam boobu nga tiim xam nga ne yow nuróowuloo koo xamante ne bu ñëwee ñu tegal ko palaa da ko naan fuux ñaan bi yoon nam nekk ci xamu ko sax bay wax xamu ko ba mu di ko wax kon yow mi ko wax yaa assuré sa bopp yaa assuré sa ñam boobu ndax li tax ngay ñaan ñaan bi coroxaan mu ngi fi te jamonoy lekk lañ dab fott mu ngi fi te jamonoy lekk lañuy dab waaw ak leneen ak leneen ak leneen àndandoor ak seytaane di lekk mu ngi fi te jamono bu ñuy jëfandikoo ñam boobu la seytaane di ñëw participer bokk ak ñun ci ñam bi kon yonentu bi ne na nga nga sécuriser sa bopp na aar sa bopp na nga wottu sa bopp jamono bi ngay tiim ñam yàkkamti bu mu la tax a fàtteloo ñaan bi xiif bu tar bu la tax a fàtteloo ñaan bi kon du'aaul barakaat li xadiis man at'amahu llahu ta'aaman falyaqul allahumma baarik lana fiih wa at'amana xayran minhu xadis bi rawahu tirmisi wa xassanahu albani ñaan la boo xamante ne yow jullit bi del ñaan yàlla ne ko allahumma buri yàlla baarik lana yàlla nga ñu barkeel fiihi ci ñam wi wa at'amana xayran minhu yow buur bi xam yiw ba nekk ci ñaan bi yàlla nga ñu ko wërsëgal ñu daj yiw boobu ñam bi na doon n'importe ñam ñam bi na doon misu ñam bi na doon dibi ñam bi na doon lu mu munti doon waaye ndegem yàlla wërsëgal na la ba nga tombeek barke ba fa nekk yàlla barkelal la ñam bi mu jàllar beku may la ba fa nekk yaa lekk ci ñam bi li gëna ëpp solo donte ñaari kuddu nga ci tibb doonte ñaari dànk nga yem ci ñam bi yaa gën a am li si gën a ëpp solo ku lekk bool bi yëpp waaw ki lekk bool bi yëpp nag kooku bool bi la lekk ak li ci bool <laughs> waaye yow mi ñaan ñaan bi li gëna ëpp solo ci ñam bi yow moom nga jëfandikoo kon yaa ko ëppale te moo moom mi lekk li ci bool bi yëpp est-ce que du si jëlee loraange est-ce que du si mujjee loru voilà loolu tamit lu jara bàyyi xel la sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale lii ci classe bi nga xamante ne ñu nit jëlee nañ ko fa andi ko ci suñu daara réew mi fm 97.5 ngir ñu fas yéene ko wéttalanteeg mbokku auditeurs yi mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay joxe xibaar ñu ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may dégg topp ñaan bi mooy allahumma barik lana fii wa atamana xayran minhu allahumma barik lana fii wa atamana xayran minhu yàlla nga ñu barkel ci ñam bi nga ñu wërsëgal waaye yàlla nga ñu wërsëgal ñu jëfandikoo ci yiw ba ci nekk amin ya rabbal alamin allahumma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma annasir allahumma ya rabbi